ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan la si weeru koor bisib dibéer la mbir ma wóor Cheikh Ibra yaa rëy pexe murid yi ñu ngi leen di nuyu bu baax li tax ma tijjee lool nag mooy dañoo nekk si guddeelu ñaar fukki fanu koor muy guddik àjjuma suba si àjjuma gi mooy doon ñaar fukki fanu koor te loolee saa buñ ko tuddee xel dem ci bis ba nga xamante ni moom la Cheikh Ibra Fall jébbalu woon si Serigne Touba jébbalu googoo taxoon nag. sëriñ Touba sañ a jox Cheikh Rafal mu ndigal ndigal lam ko jox nag ci la ñu ne si weer wii muy weeru koor weeru koor mënuñu ko tudd benn yoon te tudduñu ki nga xamante ni mooy Cheikh Ibra Cheikh Rafal mënuñu ko tudd benn yoon te tudduñu Serif Assane Fall Serif Assane koo tudd benn yoon te tudduñu ko ki nga xamante ni mooy sëñ Amdi Xadi jàmbaat ji waaye sëñ Amdi Xadi foo ko tuddee xel yi dem si li nga xamante ni mooy ajjuma ajjumay weeru koor tey noonu lañ ko fa fas a defee. comme niñ leen ko diggee woon fépp foo xamante ni ñu ngi fay toggee ndogu njabootu Cheikh Rafal gi di ko def di ko jébbal sëriñ Touba mbaa njabootu Serigne Touba gi dañ fa dem wan leen la nga xamante moo fay xew Serigne Ablaye tey ñi ngi fii nii nga xamante ni mooy njaareem fii nii si kër Serigne Amdi Khady Fall jàmbaari ndog yi nga xamante ni ni ma ko waxee ñu tuddee àjjuma rek xel yi dem si moom naka gisee bis bi tey. jërëjëf sëñ Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko loolu téwéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu téwéral ko di siyaar mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp sëñ Mbaye comme ni nga ko waxee Serigne Modou Mbenn daa waxoon ne maam Cheikh Ibrahima Fall bañ ko nangulee la nangul ñëpp waaye buñ ko nangul toon duñ nangul kenn ñu nekk nag tey ci alxames guddik àjjuma di bis bi nga xamante ni moom la Serigne Touba nanguloon maam Cheikh Ibrahima Fall mu mel na kon bis boobu ci la lépp xewee moo waral tey ji ñu teew fii tey ci euh, njaareem teew fii tey ci Medina fii nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko rëdd waaye gis ngeen jàkk yi nga xamante ni moo ne suñ kanam nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima moo ko rëddal boppam fii ñu taxaw nag di kër Serigne gis nga étage bi noonu maam Cheikh daan na taxaw fii naan fii ak neex a def taaxum kaw tey ji nag ñu ñëw fii nag ci ndogu yi comme niñ ko baaxoo def ci mboolem buntu kër yëpp Serigne Amdi Khady faal di doom ci Serif Assane Fall waaye di di di di eh, Serif Assane Fall di doom ci soxna Asou Sylla sëñ Mbaye soxna Asou Sylla lépp mooma ndax soxna Asou la xam nga kàddu ga maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ñaari doomu Asou Sylla yooyu ndaw songóoral muy Serif Assane ak sëñ Modou Moussa Fall songóoral ja nag waxuma la sax doom yi waaye dafa ñëw ba ci set yi kon daal tey ñoo ngi ñëw fii ci njaareem tey fas yéene dugg ci biir jëlal leen liggéey bi waaye fas yéene leen won liggéey bi nga xam ne Serigne Amdi Assane mi ngi koy liggéey bu yàgg ba léegi bi mu ko bi mu wutoo bàyyam ba léegi liggéey bi day gën a yokk sëñ bay te loolu duñ ci sori dañuy ànd ak mbokk taalibe yi ñu dugg ci biir léegi incha allah ci kanam sëñ bay ñu fas yéene waxtaane waat tuuti rek ci tënk maam Cheikh Ibrahima Fall ak koor fas nañ ko yéene bu baax ni ko sëñ Ablaye waxee dañuy daal di tàbb ci biir wan leen li nga xamante ni moo fi xew waaye nag mm, sëñ Amdi Khady buñ ko tuddee tudd nañ njabootu Cheikh Serif Assane bi yëpp tudd nañ taalibe yi waa Gorée Noire seen tur bi li muy firndee la tax ñu mën lii ñu mën tey loolu lañ leen fas yéene wan sëñ Ablaye wan leen ñi nga xamante ni ñoo yor waañ bi ndax toggi ndog bu ñu ko waxee waañ bee si jiitu waaye wan leen kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk liggéey bi xool ñi nga xamante ni xam nañ ni kër gi du doxee ñu waxtaan ak ñoom loolu lañ leen fas yéene wan tey tey di ngeen gis lu ngeen xamante ni mosoo leen ko gis guddi gi yëpp nag ni lañ koy àndee ba suba ak jàmm ba keroog ñuy jëbbal li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ndog yi sëñ Ablaye ni ko bàyyi seex Ndaw doon waxee takk leen ñu si laylan jël leen ñu ci laylan ngeen di laylan ñuy xurbi bari saxaay tey nag si géeju Kawsara lañuy tàbbi yaa ngeen jëf laa ilaaha illallah laa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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah waaw koy jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxe woon tàbbi nañ ci biir gis ngeen li nga xamante ni moo fi xew liggéey baa ngi nii gàtt yi waajal gi sëñ Ablaye waaye li nga xamante ni nii mooy ganaar yi damay faral di wax ni sëñ Amdi Xadi li mu fi indi du ginaar waaye ganaar la ndax dañ leen a yar <laughs> ganaar yu bari teggin la ndax lu gën la jox sëriñ bi boo xoolee ganaar yi xam ni yi si gën la tànn jox ko sëriñ bi waaye wan lañ leen li nga xamante ni mooy matt meeg diw geeg yëpp waaye sikar si tur yàlla wi nga xamante ni dañ koy lay taayale bis bi nga xam nii lañ koy doxalee di ko doxalee nii ba keroog di sikkar ba keroog ñuy jébbal sëriñ bi li nga xamante ni mooy ndog yi sëñ Ablaye fi ñu toll nii daa mel ne ñi ngi rappel ngir waajal togg bi. jërëjëf sëñ Mbaye comme ni nga ko waxee léegi euh, ki gën li gën lañ koy jox euh, maam Cheikh Ibrahima Fall nii la ko daan toggee muy boo xoolee xeet yi niñ niñ niñ defaree ginaar yi ak mbokku taalibe bi niñ organisé waañ bi ak ni nga xamante ni noonu lañu àndee nekk benn waaye ni nga xamante ni tamit moom la ñuy fexee ba kenn ku ci nekk di di di jéem a euh, sart yi nga xamante ni moom lañ moom lañ teg. ci waañ waañu ngay jéem a respecté loolu loolu bokk na ci li nga xamante ni tamit tax na euh, sëriñ bi sëriñ bi da ci soññee bis bu nekk dégg nga léegi dégg nga léegi kàddu yu fi jub sëriñ bi ne nii lañ koy toggee kon euh, jàpp nañ ne lépp lu ñuy jox sëriñ Touba rek dafa war a sell dafa war a set ñi koy toggi dañoo war a set kon ni nga ko waxee boobu ba léegi ñi ngi teewlu turu yàlla wi te turu yàlla dafa nekk lu am solo loo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall moom la daan euh, àndeek moom la daan booleeg ndogo yi ndax bu ko masaana teg ci saxaar gi wax na ne dañuy tudd yàlla am na daaj ba sax boo xam ne autoraay la tudd kon loolu lépp day wane ne rek yoon wi gan dëkku fi e, maam Cheikh nee na lépp luy lépp luy gan rek dëkku fi waaye lu fi mat a indi maag sëñ Bàmba indi nañ ko kon daal sëñ sëñ Mbay ñoo ngi fii ci waañu Serigne Serigne Amdi Khady Fall fii ci kër Serigne Assane Fall di ñoo ngi fii ci waañu Serigne Amdi Khady Fall fii ci kër Serigne Assane e, ngir taxaw ngir. wan leen liggéey bi nga xamante ni waa kër Serigne Amdi Khady Fall ñu ngi koy am gis ne dégg nga léegi rappel bi mboolem taalibee yi seex yi toppoon Serif Assane tey jii ñu jokk tey ci Serigne Amdi Khady Fall ak mbooleem rakk yi tey ànd nañ liggéey bi mbooleem soxna yi tey ñëpp bàyyi nañ seen yite yëpp tey ñëw fii ci kër Serigne bi ngir fas yéene taxaw liggéey bi ba mu sontu ñu yóbbul ko ki fi nekkal Serigne Touba. jërëjëf sëñ Ablaye kon ni ngeen ko déggee rek noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen guddi gi xaaj na fii nii si njaareem si kër sëñ Amdi Khady togg mi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 bisimilah jox nga ko addiyee gileem yu sëfi ngurdu sëfi koom soldat sa yaa joxe sa doom Fallil Fall am nag texe mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ñëw nañ démb ci guddi ajuma tombeek ñuy lewetal nag yi waaye nekk ci liggéey bi ñu xëy suba nekk ci liggéey bi ngir fas ne eh, defar xéwal yi yóbbul ko ki fi nekkal Serigne Touba comme niñ ko baaxoo defee ci waañ yi ñoo ngi fii ci waañu am di Assane fii ci liggéey bu am solo bii gis ngeen waañ bi macha allah mbokk taalibe yi gis ngeen giru noir yi niñ àndandoo nekk benn waaye ngir fas yéene liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Bay ndogo yi waañ wi da ci am solo lool rawatina xéwal yi nga xam ne moo jëm kër Serigne Touba Cheikhoul Bamba Khadimou Rassoul. waaw kay jërëjëf sëñ Ablaye murid yi gis ngeen ni ko sëñ Ablaye waxee waañ yi nag bari na du fii rek mooy waañ bi biir kër gi am na waañ mbedd yi am na waañ cin yaa ngi fa saxaar saa ngi nii di jolli gis ngeen lii lépp ndigalu sëriñ Touba rek a ko waral te moom la Baye Fall yi nekk sëñ Amdi Xadim mi yàlla fi yàgg loolu te wér ak rakam yu tedd yi ak taalibe yi ci loolu lañ nekk nii lañ ko fas yéene ànd ak yeen ba keroog ñuy jébbal ndog yi ki nga xamante ni mooy sëñ Bamba nii lañ ko bëgg a ànd ak yéen ba keroog ñuy jébbal ndog yi sëñ Bamba sëñ Amdi Xadi li mu def day gor day jullit waaye fit wu rëyee tax nga am ko fit wu rëy moo tax nga mën ko waaye fit wu rëy tamit mooy tax nga am yéene jëf ko sëñ Amdy Khady lii mu def boo xoolee mbool mbooloo mi fi nekk dañ ñoo wax sànq boo boo amoon drone sax ba yéegal ko si kaw xool mbooloo mi xam ni ñii am nañ yéene lool si sëriñ bi am nañ yéene lool sëriñ bi la waykat bi waxoon nag di toggi boolam bojj toolam jébbal boroomam di lekk aw des fii nag fi mu ne sax des bu ñu fiy lekk dafay amut ndax lépp sëriñ beeku moom sëñ sëñ Bay ñu ñëw tuuti ci jëf. mu mel ne sëñ di dafay wax dafay dafay wax naan ku yokkul yaa wàññi mu mel ne ndog yi ren yokku na ko loolu nag buñ koy wax eh, moom mi koy jëf sëriñ di digganteem ak sëriñ Touba la waaye yàlla mi nga xamante ni moo tax mi di ko jëf moom mooy seere si waaye rek wax gi ñu koy waxit it tërëwut ngir nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñooy dégg kàddu yi man cee man cee jaaju bu baax a baax mu mel ne ab Baay Faal jëf moo ko war ab Baay Faal fexe bu sëriñam wootee mu wuy si rawatina sëriñ bi nga xam ne njabootu boppam sax sëñ Bay sëriñ bi yërëmu leen ci liggal lii yaakaar naa ne ki dul yërëm njabootu boppam waxamtuma laa akub taalibe ndax sëriñ bi fi ne luy sëñ borom it daan wax naan ñañ mayoon dem na ña doon mayee dem nañ léegi luy jaay moo fi am te koy luy jaay ko am njëkk sëñ Bay. waaw mooy li sañ am di di wax rek mooy yàlla moom amul kumpa moo tax sax tere nañ fi. lim yi ñu ñu ñu di ko biral ndax moom li muy def ki mu koy defal xam na ko moom it li mu koy def xam na ko waaye nag dafa nekk loo xamante ni day saggu murid yi moo tax wane wii ñuy def sax mënta ñàkk ngir murid bu ko gis jaajuwaat murid bu ko gis maanaam làmbaat sa pas-pas ajaat ko fu kawe laxasaa yu def ni moom teg ko sa bët ngir jëm koo roy ndax référence la idole la waaye day nekk koo xamante ni sagub yoon bi la sagub yoonu murid bi yëpp la kon noonu la ñuy àndee tàbbi ci biir wan li nga xamante ni nii moom la murid yi nekk ci biir di liggéeyee liggéey bu sell bu jekk bu rafet boo xamante ni kenn yeewewu ko ku du Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf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 ne leen duñ yem kepp si walleen li nga xamante ni mooy togg yi waaye fas nañu dugg si biir kër gi xool ñi nga xamante ni nii eh, seen xam-xam wala eh, seeni seen i jëf wala seeni wax yàgg nañ ko miin ci li nga xamante ni mooy yoon bi rawatina fii nii di yoonu Baye Fall di kër Serif Assane Fall ñi si ànd ak sëñ Ablaye ñu dalal tey ki nga xamante ni mooy Baye Moustapha Seck saa bu waxee ñëpp xam ni li muy wax lu mu gëstu la lu ma xam la waaye lu mu teg fu leer la tey moom lañ bëgg a séq ak waxtaan fas yéene koo laaj mu tontu ñu comme ni leen ko diggee woon. ok sëñ Baye euh, comme ni nga ko waxee rek jërëjëf mbokk yi ñuy topp euh, ñoo ngi fii ci kër Serigne Assane kër Serigne Amdi Khady Fall ci weeru koor gi ci ndogo yi ci bisub aljuma bi nga xam ne Serigne bi mi ngi koy taxaw jamono bu nekk ñu toog koo xam ne nag euh, jàmbaara lool ci yoon wi nekk koo xam ne tamit kàddoom jote na fu ne bokk ci nag ñi nga xamante ne yor nañ kàddu sëriñ bi muy Baye Moussa Seck. Baye Moustapha Seck nag moom lañ fas yéene waxtaanal tuuti ci euh, taarixu ndogu yi waaye tamit fi ñu tàmbalee rek waxtaan wi mooy euh, ki nga xamante ni tey moo waral tey lii tey muy maam Cheikh Ibrahima faal waaye doomam ji nga xam ne mooy Serif Assane Fall mi xam ne moo meññi Serigne Amdi Xadim mi tey kooku lañ bëgg a tàmbalee Baye Moustapha euh, buñ la doon laaj kan mooy Serigne Serif Assane Fall. auzu billaahi mina seytaani ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائما ولا منسفلا نصرتني فإنك النصر ما وتعبي إنك البصير ثم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ممتسم للمصطفى كليتي كل سنة مدحا صلاة وحباب الأسنة يا ربنا حبلي بحق الكوثر يمن الحياة وأجور كسر أمين رجونا إلى نار فال جنات كوثر sarifun karimun inda Tuuba wa Kawsara ki la laaj dey ku naqaree xam la ku jafee xam la ndax Sëriñ Asan mi nga mooy kan mu ngi mel ni nga ni ma kan mooy géej mbaa nga ma géej lu ci ne xanaa kay ka dugg bi géej su fekkee ndox maa ko yitteel fa mu yéema ko xuus lay xam fa ko ndox ma toll waaye fu ko gën a xóota ni biir géej da ko da caa yëggut su fekkee jën yaa ko yitteel jën wa mu ca jàpp lay mën a xam nu mu toll wala nu mu mel waaye yu ko gën a bari ëpp koo nga biir géej da koo gisut te sëñ Assane Fall la mel ndax firnde yi ñu ci am bari na lool Serigne Assane dafa bokk ci doomi maam si Ibrahima Fall yu mag yi ko jàppale ci liggéeyu borom Touba Xaadimu bi jàng alquran ba man alquran ginnaaw bu mu doonee doomi maam si Ibrahima Fall. te bi muy ñëw jamono ëpp cëram la indaale fii wax na ko ay yoon ba mu jàngee alxuraan ba man alxuraan am itam maam si Ibrahima Fall xam ne liggéey sëriñ bi wet gu ne war nañ ko fa jëme ndax siñ bi daa daj te war nañ koo xamal ku ne liggéey bi ku ne da war a jariñu kon Baye Moussa xam naa ne léegi rek bi ngay bi nga yoree kàddu gi ci démb maa ngi dégg ngay wax xeetu toggin bi niñ koy toggee loolu est-ce que du jar leeral ni ñi ni mu ni mu sellee ak ni nga ko ni nga ko waxee jubluwun ci sax pour di pour di lim wala yooyu waaye li nga ko doon leeralee ci xeetu toggin bi. xam nga sëñ bi moom sëñ Moussa Ka dañ ne yàlla karim la buur du fay lu sellul dee leen sell li jëf tey dow lu yellul sëñ am di xadi faal nag. jëwriñ yi mu am yu jigéen yi ñii di ay soxnaam ak ay rakkam ak i magam yu jigéen ak ay doomam ak magi taalibe yi ñi nga xam te ne ay ancien lañu tàmbali togg gi 1954 ba nëgë ni ñu miin ko jëwriñ yu jigéen yooyu ñoo joxe ndigal nit ni ñu bëggee togg gi ndax togg gi ni ko kenn miinu ko sa kër fii rek lañ koy gisee kon nag ñu ko miin 1950 ba léegi ni dañu leen di diglu ñu waxe niñ ko bëggee bu dee ginaar yi ñetti ndox lañ koy raxas te ñetti ndox yi benn xeetu saabu du ca dem du madaar du omo du leen dañ ko raxas ak vinaigre dañ ko raxas ak limon ba mu set wicc ba weex tàll nga def sa marine frotté ginaar yi ba ni nga bëgg ñu roof ko piqué ko ba mu yegg ñu di ko suub ci cin di ko muusal duñu ko tay dañ koy muusal waaw boo ko muusal boo waaye par yent ginaar mbaa juróom nag ngay muusal soo muusalee par yenti ginaar wala juróomi ginaar ba mu ba mu mel ni lu ñor nga génn teg fee defaat yeneen yenti ginaar wala yéen juróomi ginaar ba ndab lañ dox yegg lii may wax ne li ma ci jubloo wax ak leeral la waxuma ab lim ndax ndab liñu ñu lay jox def ci lu war a ma juróom fukki ginaar do boo ko muusalee ci cin li la suuf dina ñor te la ca kaw du ñor su ko defee nag dañ koy muusal par ay sumb suñ ko muusalee par ay sumb ba noppi daal di koy jaaril ci diw gi saaf ko ci diw gi ba ñu ko saafee ci diw gi ba noppi am na am na ñu yor lu mel ni ay fuur nga xam dañ dañ mel dañ ko ca dañ ko ca lakkaat lakkaat nga xam day wow koŋ boo ko téewoon ñe ñeenti ay bisit du nëb loolu la ñuy def daal def soos bi teg ko ci digg bi jël ginaar yi wërale ci toggin wu sell wow la ñu togg ginaar yi. waaw kay mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek lii fii ñu nekk ni barab bi dafa bokk ci li nga xamante ni mooy ndog yi ndax fii dañ fi waajalee li nga xamante ni mooy café Touba. te Café Touba nag ku ko tudd xamee ko li nga xamante ni mooy yoonu murit te sëñ Bamba sëñ Assane Diaw nettali na ko nekkat daa waxoon mag ñi ne na ngeen ko fonk loolu ndax sama deret laa ko jëndee euh, sëñ Gueye Madial mii nga xamante ni moo jiitee kuréel gi di ëxlu tufatu ñoom dañu fi amal liggéey bu am solo du fii sax si koor gi rek waaye fépp foo xamante ni murit dañ fay daje dañ fay amal lu mel nii di segg kafe di jox murit yi Gueye Madial ñu ngi lay nuyu bu baax di ñu ngi delloo ziar bu baax a baax te di leen jox seen wàccuwaay waay ziar mboolem murid yi nga xamante ñu ngi teew eh, tere bi tey topp émission bi ñu leen ziaraat baax di jox di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax. jërëjëf Guèye léegi liñ bëggoon a laaj si tënk rek maanaam barab bii ñu nekk mooy fan ak lan mooy seenub liggéey. waaw fii de ñu ne mooy kër Cheikh kër Cheikh Ibrahima Fall muy Medina Medina fii la maam Serigne Fall njëkkee doogay dem Màkka mhm. waa fii mooy kër Serigne Amdi Khady Fall di Kawsara waaw waaw fii la ñu toggee ndog yi fii daal mooy kër Seex ak njaareem waaye fii waaw fii mooy mooy mooy waañ mooy beneen waañ bi ndax kër si ñam di ñu nii mooy waañ bu njëkk bi waaye si ginnaaw mooy njaayeen beneen waañ bi fa dañoo yokk mooy yokk yi ndax yëpp xaju ci kër si ñam waaw loolu daanaka yëpp ay waañ la waañ boo xamante ni moom lañ ci yokk fii nag ñu nekk waa ëxatu fatu ñoo féetewoo waaw waa ëxatu ñoo fi nekk ñoo fi liggéey nag daanaka mën nañu tàmbali nañ ko yàgg na ndax dañ daan def waxtu bu jotee waxtu bii bu jotee ñuy mel ni ndox ak glace ndax ma njaareem dafa tàng képp ku fi ñëw xam nga tàngaay njaareem waaw ñu ñëw nag gis ni dafa tàng te glace dafay manqué ak yooyee yëpp ñu duggoon ci dëkk bi nag doon ko wuti naan ko ko tàmbalee ci ñetti téeméer bis boobu maa ngi fàttaliku dañoo ñëw mu tàng lool maag sama benn mbokki taari bi ñu ni fii murid yi soxla nañ ko te ñu ci bëri dëkkuñu fi ci lañ jël suñu moto jël ñetti téeméer yooyu dem jënd ko paanu glace mhm. waaw photo yi sax ngi ci kii moo ween ko tàmbali ba tey fi mu ne nii ñu jaaree ci budget ay millions ak yooyu. man damaa jàppoon ni café kese la kon am na yeneen. déedéet lépp koo dañoo nekk nii ngir maanaam képp koo xam ne murid nga ñëw nga ci liggéey bi soo demee ba sonn fii ngay ñëw fii ngay noppaloo ndox am na fi ndékki am na fi ay reer am na fi ay añ am na fi añ yaa ngee ñuy waajal lépp la ñuy waajal loo xam ne nit da koy yittewoo rek mu ngi fi ndox comprimé lépp luy faj lu nit yittewoo rek si ndog yi nga xam dafa ñëw si ndog yi tumuraanke am benn jafe-jafe su ñëwee fi dañ koy faj ñun loolu bëgg moo tax ñu si lépp la ñuy dox lépp loo xam ne da koy yittewoo rek ku ñëw fii am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba fii am examen en war koo def ordinateur yaa ngi fee ñu jox ko ko waaw góor lii nag xanaa mooy mooy sëkk nag léegi ki nga xamante ni daf leen di seetaan gis li nga wax nii mu bëgg leen waaw maanaam kooku loo koy wax kooku duñ ko wax rek yoon bi nii képp la maam Serigne Fall moom wane na yoon wi waaw mooy bëgg gëm jëf waaw te yoon wi moom benn Sëriñ Tuubaa am ak benn maam Cheikh dem fépp waaye maam Cheikh Ibra bu mu woote moom reer na naññ waaw képp ka nga xamante bëgg nga ànd ak murid yi ci liggéey bi yoon waa ngi mu fay mu ne ma man xam nga Assane man ma ko kii waa Kawsara kii nangam sëñ Aziz ne ma est que na ngeen am fidde ndax taalibe bu ñu boora rek sëriñ si boora waaw ñun nag noonu lañ bokk pas-pas lañ bokk waaw bokk pas-pas dong lañ bokk ñu ñu bokk pas-pas nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall képp lañ yaakaar di dox doxinam wa bañoon ñu koy def waaw di ko yóbbu sëñ Fallou mu sëñ Bassirou waaw ndog tamit naka noonu suñu bunt maam fii ko tàmbalee moo tax ñu yem fii nga xam ne kat comme que bunt benn la ñu nekk fi ndax njaaram benn toogkaayu ndog dong la muy fii kër Cheikh njaareem fii dong la ñuy toggee waate Touba moom a ngi togg waa kër maam Cheikh yëpp ay togg moo tax nag njaareem ñu consent ginnaaw ba benn ka ñu ne nañu liggéey fii te gis nañu yoo xam dafay woon muy glace yeeg yooyu fi gi ne ni glace yaa ngi ne tege day dem ba day des dañuy yóbbu kër soxna daba mu sëñ Fallou ak yeneen ak yeneen yóbbu suuku baak yooyu waaw noonu daaga dem jërëjëf jërëjëf Guèye Madial ci kaddu yu am solo lool gis ngeen ni mu ko waxee nee na dañoo bokk pas-pas te ñàkk a bokk pas-pas moo taxoon ngay gis ñu bokk deret si xare badar wala xare yi nga xamante ne amoon na ñuy jamante ay xeej kon bokk pas-pas mooy lépp géey ñu ngi lay sant bu baax tey sant murid yi nga xamante ne ànd nga ñoom waax lu tux si liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ndax saakukat bu defu dara du taxaw te wax nga ko lépp ngeen di waajal bàyyi añ sax ngir murid yi ñi mar mën fee naane ñi xiif mën fee lekkee waaye ñi bëgg a dallu mën fee dalloo ba sax wax nga ko ko am examen incha allah boo bëggee ku ko dimbali sax bu ñëwee fii dimbali ko lépp nag si koor gi si si lay xewee incha allah ni lañ koy ànd ak yéen fas yéene tàbb si biir rek wal leen lépp li nga xamante moo fi xew jaa jëf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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ok jaa ngeen jëf murid yi gis ngeen liggéey bi boobaak léegi ñi koy ànd ak yéen fi mu toll nii nag ñi ngi si wàccaa yi indi li nga xamante ne mooy bool yi ndax bi ki nga xamante ne nii bi muy togg ndog yi kam koy jox xëddagul sax kon xam nga ni lool war naa mën a teel a noppi fi mu ne naaj bi tàng na jër waaye li nga xamante ne war nañ koo jébbal sëriñ bi fi mu ne noppi na ñi koy tàmbalee indi ñi gis ngeen laltu yaa ngi nii lal nañ ko ba noppi ngir uh, laytaayalu ko li nga xamante ni mooy bool bi ngir sellal gi ak ni nga xamante ni moom lañu ñu bëgg mu mel ndax sëriñ bi ni nga ko waxee sànq rek boo koy jox da koy jox li gën waaye li ma waxoon keroog lay waxaat mooy njaboot gi ñoom ñooy saytu liggéey bi tooguñu rek di jox di waaye ñoom ñooy ñoom ñooy laxasaayu takk seen ndigg jiita jiita jiita taalibe yi waaye di leen wan nan la naka la njaboot gi rek ñoo fi nekk ñu am liggéey bu am solo boo xam ñu ngi koy liggéey ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër ki nga xamante ni mooy seen Amdi Khady Fall. waa kay jërëjëf sëñ Baye sëñ Amdi Khady Fall euh, jàmbaar ji ki nga xamante ni euh, boo ko tuddee rek xel yëpp dem ci jëf boo xoolee bool yi ni muy rombe nii bool yi nga xamante ni njaboot gi. ñoom lañ joxoon cin ñoom ñooy romb nii waaye sëñ bay nga xool suñ ginnaaw basang yi nga xam ne lal nañ ko muy ni mucc ayib nga xam ne bëgguñu sax bool yi tege ci suuf loolu nag dafay wane ne liggéey bu sell liggéey boo xam ne ki gën li gën nga koy jox dañuy wax naan buur kenn du ko jox yàpp fanaan yàpp wata boor lañ koy jox kon sëriñ bi ni mel ak digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu muy jox sëriñ bi dañ koy saytu boo xoolee. mbir mi boo xoolee liggéey bi ni ma amee organisation bu am solo boo xamante ni seetlu nañ ko ci eh, nga xool njaboot gi niñ taxawee nga xool bool yi ni mel nga xool niñ ko muuree loolu da ngay xam ne suñ Mbay eh, maam Cheikh Ibrahima rek moom rek moo mën a liggéey Serigne Touba li mu daan wax naan yoon wi eh, def naa ci loo xam ne ku ci dolli leneen da ci yàqu waaye doo ci jëriñoo kon lépp lu mat a am rek ci yoonu Baye Fall maam Cheikh Ibrahima def na ko lépp loo xamante ni rek ab Baye mel na ko tey jii. nañ ko sant Babul Mouridina maam Cheikh Ibrahima Fall ndax tey jii ndogu yi nii ñu yóbbul ma Serigne Touba Cheikhoul Bamba Khadim Rasoul CMD Khady Fall di ko wàccee di ko waajale fii ci njaareem euh, boo xoolee bañ tàmbalee ba léegi sëñ Bay gisoo fi lenn loo xamante ni ku ñëw dina gis ne ñii togg mi ñuy togg jaarut yoon waaye xoolal liñ fi waxtaan yëpp ñi fi waxtaan yëpp li ñuy wax mooy service gi nga xamante ni ñi koy togg am nañ ñëpp dañuy sol déguisement yu rafet moom kon ak Baye faal sañ Bay nekkut ci sol ay sagar ndax booy togg aw ñam ngir jox ko nit mu mën koo jëfandikoo sax day fekk nga silwise set mën koo joxe. jërëjëf sëñ Ablaye togg gi set na waajal bi set na euh, bool yi set na liñ ko muuree set na nit ñi set nañu wàccaa yeeg yëpp doon na lu sell loo xamante ni nii nekk na tey lu nu mën a jëfandikoo loo xamante ni mat naa jox sëriñ bi loolee nag lañuy ànd ak yéen incha allah dugg ak yéen ci oto yi. gannaaw bi booli noppee bañ bañ yàpp ko si camion yi ànd ak yéen dem fi nga xamante ni mooy Touba ba keroog niñ koy jébbalee ki nga xamante ni nag mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér kon bismillah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 mi ngi nuy nuyu dinu sant dinu gërëm te dinu ñaanal dafa wax ni nag la daan wax xel waa gis ak wa moo ca gën metti te nu nga ca àkk wi xam na ni ajuma ji di ñëw ajuma yi mooy ajuma ji mujj ci kooru ren insha allah yem ci yàlla yegg ak jàmm weesu ko te am ci ndam sëriñ bi ni na fa mu ca tolloon daaw da koo bëgg na la ilaha illallah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 la ilaha mbokk yi gis ngeen ñi ngi nii tey agsi nañ fi nga xamante ni mooy Touba li ñu woor li ñu waxante woon ak yéen day mel ni def nañ ko ndax biig si guddi lañu ànd ak yéen liggéey bi wan la nga xamante ni xew na njaareem sëñ Ablaye waaye bi ñu xëyaatee ba bëccëg gi tamit la nga xamante ni ña ngi ko doon doxal foofu ngir wàcc wàccaay li nga xamante ni mooy ndog yi nga xamante ni gis nañ ko nii yooyu yaa ngi si ginnaaw indil nañ ko sëriñ bi wàcceeguñ ko nag waaye gis ngeen guddi gi daanaka dugg na ñu dugg si guddi goo xamante ni nag day ñaar fukkeelu benn bu yem ak li nga xamante ni mooy kumte sëñ Amdi Xadi waneeti na boppam waneeti na doolem waaye waneeti na bëgg gi mu bëgg maam ja Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf seen bay comme ni nga ko waxee woon sëñ Amdi Xadi waneeti na boppam ah, ndax ah, démb ba léegi ñoo ngi njaareem di eh, topp liggéey bi fi mu toll. ba tey jii ñu ñëw fii tey ànd ak convoi bi gis nga convoi bi ni ma amee solo mboolem njaboot gi yëpp ànd ak sëriñ bi ñëw fii nag jëbal ko borom liggéey bi mooy mel ne euh, ab liggéey euh, boo koy liggéey ngir jëbal ko borom boo xasee boo ko jëbal ko borom rek yow sa jàmm wàcc na waaye nag euh, yoonu Baye Fall amut amut yoonu Baye Fall day dox tey jii dese nañ yeneen àjjuma yoo xamante ni incha allahu rabi dinañ ci fas yéenee àndaat ak yéen waaye daal lii ñu gis suñ ginnaaw mooy camion yi nga xam ne. moo defoon ndogu yi euh, euh, di camion yoo xamante ni sëriñ bi ci lay def liggéey bu sell boobu noonu euh, ñëw jébbal ko sëñ Mountakha Mbacké di ñaan suñ borom yàggal ko loolu téwéral ko ñoo ngi fii nag tey ci résidence fi nga xam ne fii la sëriñ bi di recevoir fi nga xam ne fii la sëriñ bi nekk boo xoolee boo duggee ci biir da ngay dégg fulk bi mbokki taali bi kii isbu yi di jàng mbokki taali bi di sikar kon fii daal sëñ Bay mooy jumaay Touba fii ñu si mooy fi nga xamante ni fii la borom liggéey bi nekk xanaa di àndaat ak yéen nag yeneen jamono ak ci yeneen ndogo euh, ndax yéen ñun li ngeen bëgg rek ci loolu la ñuy dox ci soo ba léegi ñu ngi fexe ba wutal leen loo xam ne suñ ko suñ leen ko wonee rek dina di ngeen ci bëgg waaye tamit dina gën a yokk tamit pas-pas bi ñu ko tàmbalee nag ci ñun ñii tey jii daal ñëwaat nañ fii ci sëñ Bay ci jumaa ji sëriñ Amdi Xadi Fall ànd ak njabootam ñëw jébbal liggéey bi borom liggéey bi euh, li sëñ Cheikh Fall Mbaor doon waxe naan ñun togg indi rek lañ ci waaye bu sëriñ bi def ci kàmbit ñun loolu suñ yoon nekku ci. jébbal nañ liggéey bi borom liggéey bi ni ko sëñ Abdoulaye waxee noon it lañ ko fas yéene ànd ak ànd ànd ak yéen saa su nekk fépp foo xamante ne ñu ngi fay togg ndog yi wal leen la nga xamante ne moo fi xew ci tàmbali gi ba keroog ñu koy jébbal ki nga xamante ne mooy sëriñ bi mbokk yi kon ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.